بسم الإله فين الدار يا الله سفين بقى ابي لي فيك يا الله بسم الإله فين الدار يا الله سفين بقى ابي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 juillet 1441 waaye dëppoog le 16 ci weeru juillet 2020 ba tey ñuy continuer leçon yooyu nga xam ne ñu ngi koy def tey nag ñuy continuer leçon sur Word xam ne mooy sar Word bi gis tey mooy ginnaaw bi ñu gisee ay outils yu bare bare bare tey dañuy gis benn bu ñu outil bi nga xam ne mooy bu tablo naka la ñuy defaree tableau ak naka la ñu koy dessiné ak tableau bu ñu mën a jox ak bu mën a doon yaakaar nañ boo toppee yoon bi incha allah. même bu mënul lepp nit di yu bare bare dang ko ci man bu sobe yalla par nak comme tay ji exemple ñun kon biñu jël tay comme moy comme melni bi ngeen gis ni nga xamé dafa melni ben emploi temps am ku ni day eh, jang informatique ak melni mardi mercredi jeudi bi comme ni nga gisé ni mu feeñ ci ci écran bi ni comme tableau melni mel dañ bëgg defar inshallah allah naka lañ ko euh dañuy ñëw fi nga xam ne ñu woowee tableau ñu la ci cliquer buñu xolé amna fi na fii yëpp mel ay tableau dafay nekk ci lu concerné huit fois dix nga xam ne huit colonne nekk fois dix ligne euh, damay cliquer fii nii nga xamee ne mooy ci tableau bi mu ñëw ma am lu ma leer tout bu la ñoo commencé tableau bi ci informatique ñoom bu ñu waxee tableau liñ ci jublu mooy lan mooy loo xamee dafa composé ci ay colonne ak ay ligne am na tableau boo xam ne ñu ko waxee ñiy jàng ñoom ñi ngi ci jublu tableau bi ñuy bindee seen leçon yi li nga xam ne ñu jàng oto bu ñu waxee tableau mooy tableau tableau boobu diir ñoom moom la ñuy wax ñi nga xam ne dafa def euh, publicité tableau panneau de publicité moom tableau lañ koy wax ñun nag bu ñu waxee tableau ñun li ñu jur mooy lan mooy loo xam ne dafa composé ci ay colonne ak ay ligne lan mooy colonne ak lan mooy ligne colonne mooy lan colonne mooy lii nga gis mu taxaw nii la ñu woowee colonne boo xoolee lii benn colonne la exemple ma couleur ko fii nga gis lii benn colonne la lii benn colonne la bii tamit beneen colonne la euh, ma bañ a kii ñu def ay différence yëpp ay colonne la xoolee. Euh, boo àggee ba ci suuf nii yëpp ay colonne la kon bii taxoon lépp benn colonne la bii taxoon lépp benn colonne la bii taxoon lépp benn colonne la bii taxoon lépp benn colonne la li bii taxoon benn colonne la kon bu ma laajoon tey ñaar colonne nañu am lan ngay wax da nga naan 1 2 3 4 kon am nañ 10 colonne am nañ 10 colonne lan mooy ligne ligne mooy li tëdd nii li tëdd nii la ñu wooyee ligne comme tey ji exemple Eh, lii tëdd nii benn ligne la bii tamit eh, moom it mën ngaa wax ne moom it benn benn ligne la bii tamit mën ngaa wax ne moom it benn ligne la kon ligne mooy lan mooy ligne mooy li nga xamee dafa tëdd nii boo xoolee commencé fii nii ba fii lépp ligne la nga wooyee fii ba fii yëpp ligne la nga wooyee fii ba fii yëpp ligne la nga wooyee kon boo waxoon ne ñaata ligne la am daan un deux trois un deux trois quatre cinq six sept huit quoi am na dix colonnes ak li nga xamee ne moom mooy Euh, li nga xam mooy huit euh, lignes léegi nag benn bii kese nuñ ko woowee benn lii mën na ab karo ñu ngi koy woowee cellule moom la ñuy woowee cellule lii la ñuy woowee léegi nag bu fekkee damaa sélectionné commencé ci kaw nii ba ci suuf wàcc mën na la lii ma sélectionné nii xaaral ci benn couleur nga xool mën na la lii ma couleur nii est-ce que mën na colonne danga naan ma déedéet mën na lu tax nga ne ma mënatu colonne nga ne ma ndaxte bu ñu xoolee ak suuf fii suuf ndaxte colonne bi la ñuy wax colonne mooy dafay commencé fii ci kaw ñëw ba ci suuf ñu doog ko tuddee colonne mën na la kon lii ma sélectionné nu mu tudd nga ne kon de mën nga ko tuddee groupe cellule dégg nga mooy ay cellules yu ñu boole mën nga ko tuddee waaye lii moom mënoo ko tuddee guñ colonne ndax mën ko colonne mën la tamit ba sélectionné fii ñëw ba fii mooy c'est la même chose mën na la ndax am naa ligne nga ne ma ah ba fi ñu toll nii de wax dëgg yàlla amagoo ligne mën na loo tax nga ne ndax commencé dafa commencé fii waaye jeexut bu jeexoon nag ñu doo ko tuddee benn ligne léegi ma naan la kon bu ma seetoon lii ba fii ndax am naa ligne nga ne ma fi mu toll nii moom am nga ligne ma ne la ñaata ligne mooy ligne yi nga xam dafa chocolat nga ne ma ñaari ligne yoo xam ne mooy yi nga xam dafa chocolat kon boo xoolee benn ligne moo nekk nii beneen bi moom moo nekk nii kon ñaari ligne ñoo xam ne dañoo chocolat ma ne la ndax am naa benn colonne bu chocolat nga ne ma déedéet amaguñ colonne bu chocolat ndax colonne bi bala ma ko mën a mat colonne il faut dafay commencé fii ñu ba ci suuf moom it kon bu fekkee ne moom damaa ñëw ma nii xool leen bu ñëwee boo ko cliqué nii léegi mën ne la ñaata colonne laa am bu so yu chocolat nga ne ma am nga benn colonne bu chocolat ndax commencé na ci kaw ba ci suuf kon yaakaar naa fi mu toll nii comprendre nañ lan mooy colonne ak lan mooy li nga xamee ne moom mooy liñ léegi nag tableau bu ci nekk dafay am comme ni ñu ko jàngoon ci yu bare image yu bari heure boo ko inséré dafay am benn onglet bi feeñ fii ci kaw xool bu ma cliqué waatee ñëw ci sama texte bi bu nii il faut nga cliqué ci fi nga xam ne koy woy outil de tableau outil de tableau bi nak dafa composé ci ñaari partie moy partie bu ñu woy création ak partie bu ñu woy disposition lan mo la ñu fekk ci création création lañ ci fekk comme tay ji suñu tableau bi bu ñu ko bëggoon changer comme yi ni comme yi yëp nga mën ko gis waye dañ ci fekk yeneen tableau bi bu fekkee da nga gis signe bi nga gis ni mu melni plus boko ko cliqué daf lay permettre pour nga sélectionner sa tableau bi lepp nga xam ne tey bu ko bëggoon déplacer damay bës gauche di and ak mom bu fa ko bëgg déplacer ma tek ko fa wala ma bëgg ko wàcc suuf wàcc ko wàcc ko fii ma teg ko fii kon lii daf lay permettre pour nga mën a sélectionner sa sa tableau bi di ko yóbbu fu neexee mooy pièce bi ngeen gis nii bu dee da bu ndaw bi nekk suuf nii mel ne benn euh, benn benn carré moom boo ci bu defee ñaari flèche nii daf pour nga yokk sa tableau bi bu dafa ndaw waaye boo ko bëgg bësaatee daf lay permettre pour nga wàññi li nga xam ne mooy sa mooy sa tableau bi kon moom daf lay permettre pour nga yokk sa tableau bi waaye daf lay permettre pour nga wàññi sa tableau bi buñu gisé symbole bi ni mu def ni flash bi ni mom daf lay permettre pour nga sélectionner sa colonne bi lepp fi ne mo ma sélectionné sama colonne bi lépp mën naa ñëw fii def ko ben couleur bu noir mo ñaar fi ni mo def ko momit mo mu sélectionné sama colonne bi lépp mën naa ñëw fii def ko ben couleur ben couleur mel nii kon bu defé flash bi ni mo def lay permettre pour nga sélectionner sa colonne bi lepp bu fekkee dama gis na mo def ben flash mel nii comme tay ji exemplaire comme flash bi nga gis ni am changé couleur bi ni pour ngeen gis flash bi da fay mo dafay noir motax masan changé def ko ben couleur bu zone comme du rouge gis ngeen flash bi wala bu defé ni moy flash bi ni bu ñuul bii nii boo cliqué benn yoon fay sélectionner cellule bi kasse bo ko bësee deux fois da fay sélectionner sa ligne bi lepp la sélectionner manam bu ma bëggoon couleur ligne bi ni man nañu ñëw couleur ko nii ligne bi wala ma couleur couleur vert comme ma ko bëggé mu ñaar fi ni ma cliqué benn yoon mu sélectionné cellule bi bëss ko deux fois mu sélectionner lan mboolem li nga xamé no moy ligne bi lepp bu ma nak euh mu def ñaari flèche ni comme ma tek ko ni mu def ñaari flèche yi nii dafa lay permettre pour bu ma bëgg na yokk sama colonne bi nii mu gën a yaatu gis ngeen yokk naa ko bu mu gën a yaatu comme nii wala mu bëgg ko wàññi ma laa koy ñëwaat yokkaat ko nii mu wàññee ko nii kon sama bu defee ñaari flèche yi rek daf lay permettre pour nga yokk sa colonne bi ak di ko wàññi bu dee nag da nga fa nekk ci ligne bi nii bu defee bu dee dafa tëddee nii xam nga bii dafa tëddee woon dafa taxaw mooy ñaari flèche yi nga ko seq à droite à gauche bu dee nag ñaari flèche nga fi nga seq ci kaw ak suuf moo dafa lay permettre pour nga yokk sa ligne bi loo ko gën a yokk mu gën a yokk boo ko defaatee nii mu daal di wàññeeku kon bu defee flèche yi bu ñu féetee haut ak bas mooy danga koy yokk sa sa ligne bi bu dafa nekk gauche ak droite daf lay permettre pour nga daf lay permettre euh, pour nga yokk li nga xam ne mooy lan moom mooy sa sa ligne bi boo ko defee nag euh, fii nii nga gis nii yi nga gis léegi moom moo ñu permettre ñu mën a couleur suñu bordure bi comme tey jii moo ñëwee fii suñu fond bi laa bëgg wax boo ñëwee fii mën naa ko couleur ma couleur nii bu ma seet na lii lépp mën naa ñëw fii nii ma daal koy couleur couleur bu ñu bëgg def kon pour nga couleur sa tableau bi da nga stress na li nga bëgg couleur nga ñëw ci trame de fond bi nga dal koy nga dal ko ci couleur bu ñëw nak ci ñaar yi nga xamé ne comme tay ji fi ni exemple fi sa jur ma ci ñëw na ma ñëw fi directement bu ñëw fi fii ñu wooyee dessiner moo daf lay permettre pour nga dessiner tableau comme exemple tey jii dama bëgg dessiner wax ci benen tableau bu ndaw fi ni comme ni exemple comme ni mëna ñëw fi ma yëm fi yéen nga gis daal di defaat fii ay ay colonne ak ay ligne may dessiner sama tableau bi ma bëgg ci comme façon bi ma ko bëggee ñu ko bëgg la koy la koy défé contrôle de pour amane aner ma defaat nii ma defar bi fi benen ligne bo xamné fi lay nek euh benen ligne défé rëcc ma defar fi benen ligne bo xamné fi la fi la koy def defar fi benen benen colonne la bu wax ma ngi ni insérer sama colonne eh, pare naa ma insérer sama ay ligne wala bi mooy premier ligne bi ma insérer eh, fi benen ligne ñu gisé ni eh, benen ligne bo xamné da fay dem ñëw bu fi dina gis kon euh man na continuer di séné sama tableau bi nu ko bëgg a nu ko bëgg di séné léegi nag bu dee da nga tànn fii nii façon trait bi nga bëgg ma tànn fii benn trait bi fii ne bu ma ñëwee xool bu ma ko jaarlee fii kon bu boobaa façon trait boobu moom lay moom lay yor comme tey ji ma teg kon bu ma ma tegee nii rek trait bi lay ma tegaat nii mu yor trait bii bu ma ñëwee fii nii ma ne ko defal ma ko trait bi exemple kan comme bii nii fii nii ma ñëw ma daa fi changé taille bi mooy taille bi ni mu dijjee comme façon bi mooy façon yi boo neexee nga changé taille bi ni dijjee nii ma ñëw ma daa koy dessiné nii ñëwaat daa koy dessiné couleur bi ma ko bëggee changer ma cliquer fi ñu couleur style daal ñëw fii ma changer comme exemple comme couleur bi boo ñëwee nii bu ma ko defee nii dafay def couleur bu couleur boo xamee ne couleur bu kii couleur bu rouge comme tey ma dama ko def nii ci digg bi rek daal di wàcc nank euh, nank lay wàcc teg ko nii ba mu jub ma def nii fii nii ma ñëwaat tegaat nank mu jub ma def nii nga xam ne heure bu ma bëggee def couleur fii mën naa ne ñëw ma ma couleur fii maanaam noo ko bëggee rek yaa noo ko sentir nga nga daal ko couleur noonu ci tere yi nga nangu sentir nga xamné bo defé ni da fay changer couleur bi mo ñëw man ko couleur vert fi ñu ni mo ñëw ni mo ñëwaat fi ni ma daal ñëw da ko def ni comme fi télé bi ni ñëwaat fi da ko def ni ni la façon bi demer ma def ko ni mom ni daal di changer benen façon télé bi ma ñëw ma xam jël télé bi comme exemple bi ni ma ñëwaat fi fi ni momit ma da ko def ni comme ni c'est la même chose nga couleur bi da ko def couleur bu nek couleur bu couleur bu benen couleur bu mo jël légui da defal ni leen eh, ci beneen couleur bi ma cliqué ci nii daal def beneen couleur boo xam ne bokkul ak nii léegi nag heure bu paree ci couleur a eh, dessiné ko jaaree fii nii gis ko effacé bu ma ko jaaree fii fii bu ma jaaree fii daf ko effacé daal effacé nii bu bi nii mu effacé ba noppi nga xool li nga bëgg a nga la ko effacé comme bii ma defoon nii lépp mën naa ko effacé waat ba ki nga xam ne tableau bi ci kaw rek moom moo ciy moom moo ciy des comme nii ma effacé waat lépp loo xam ne neexuma ci tableau bi mun naa ko mën naa ko effacé kon nii ma def nii moom la effacé sama sama tableau bi lépp lu fi nekk mën naa ko effacé waat comme ni nga gisee nii ci gomme bi di def nii benn par benn daal effacé waat bii nii bu ko defee nag heure bu paree ci gomme bi da nga koy cliqué waat nii mu daal di désactivé waat kon mbokk yi loolu mooy li nga xamee ne moom lañ mën a leeral ci eh, fii nga xam ne mooy ci création bi ci euh, mbir yoo xam ne ci euh, couleur style bi wala boog nga changé euh, façon télé bi ngay bëgg a def sa tableau wala boog nga fekkee na nga bëgg a couleur benn kii bi même bu fekkee ne comme télé yi ngi gis ni sax neexul sax bu la neexee comme ni ñu waxoon léegi mën nga daal koy mën nga daal changé télé yi defee ko yeneen télé yoo xam ne ci sa biir tableau bi yaa koy yaa xam noo ko bëggee kon mbokk xam naa dépassé nañ temps bi xam naa bëgg nañu dafa antwal temps bi incha allah xam naa dañuy yemale foofu leçon bi rek incha xam ne moo aju bi ñu ngi leen di jégalu baax lépp lu ci lënd ci suñu ñàkk mën a leeral la lépp lu ci lu ci waxtaane ci numéro suñu borom la wa ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس